waaw <laughs> ah, doo mën a yegsi <laughs> <laughs> je vous présente Sophie désormais Sophie moom la ñu dénk euh, moom la ñu dénk waañ bi après Alfie après Tabara euh, donc Sophie sera désormais tous les matins avec nous mais Sophie kontaan nañu. kay mu wisal la rek ah saa fa ma def xaalu xaalu xaalu xaalu. voilà xuufuma la. waaw kay xuufuma la waaw kay. waaw kay waaw kay la waaw kay ñetti la. gerte tataf tap. tataf tap waaw wal wëtëri saf li li mal wëtëri <laughs> wal wëtëri ak ban mais yow l'applaudit quand même <laughs> jeex na ak ban waaw foofu la asuuma ji joo voilà waaw ci joola ah, ah, ah. eh, bu mag yow joola bu fan mag jembere jembere man ko doon nikke la déedéet gësumay la ma <laughs> eh i ñaa ome om sumbere sama xarit ba kii merci d'être là on est content yàgg nañ la gis mhm. gis nañ la 2STV euh, gis nañu euh, sa taxawaay ci wàllu cuisine fii ci Sénégal mais désormais nga ñëw bokk ak ñun aventure mhm. euh, bu yeewu leen d'abord balaa ngay balaa nga ñuy wax li nga ñuy toggal tey comme tey mooy sa baptême de feu dama lay bàyyi nga nuyoo ak téléspectateurs yi ci mhm. wolof ak ci joola ah. nga zoomé suumay bare bare <laughs> Pape Cheikh avant tout kontaan na uh-huh. maa ngi mel maa ngi sama biir kër daal maa ngi sama biir kër chez kontaan na macha allah uh-huh. di nuyu mbokk yi xarit nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan uh-huh. comme ni ko Pape Cheikh annoncé rek maa ngi fi ci biir yeewu leen ci biir cuisine bi nag nag leen euh, présenté ay plat yoo xamante ne nii ñu ñuy seetaan dañ ko mën a reprendre seen biir kër kon ma bàyyi la ma bàyyi la nga junju téléspectateur waaw ñu indil tey muy euh, euh, brochette mix waaw comme ni nga ko gisee nag Pape Cheikh maa ngi andi li nga xamante ne ni mooy brochette mix brochette mix bi nag tey pour ñu defar ko dama soxla li nga xamante ne mooy euh, saucisse de poulet am naa laitue am naa persil coriandre am naa li nga xam ne mooy euh, carotte tomate concombre am naa aussi samay épices naturelles yi nga xamante ne ni moom may accompagner ci biir waañ bi am naa linga xam ne mooy euh, piment boo xam ne en poudre la dama ko mélanger ak li nga xamante ne ni mooy sept épices def ci tuuti curry am na li nga xam ne mooy poivre am naa gingembre en poudre fi ñu ne nii nag euh, mën nañu tàmbali li nga xamante ni mooy suñuy préparation brochetu tey dañuy ñëw rek directement ñu daal di taal li nga xam ni mooy suñu gaz. daal di jël tuuti huile mu bañ a bari nag trait d'huile rek la ñuy def suñu paree directement le temps que huile bi di tàng. ñu jege jegale nii li nga xamante ne ni mooy suñu brochette jot nañu def quelques-uns dama jël li nga xamante ne ni mooy euh, saucisse bi euh, daal di dagg euh, oignon def tomate def li nga xamante ne mooy merguez moom laa jël su ma defee concombre def oignon def tuuti foie def li nga xamante ni mooy saucisse bi def carotte aussi gis nga nii déjà damay ñëw jël li nga xamante ni mooy sama persil coréen daal di découper parce que persil ku ne xam na ni dafa baax moo tax la plupart du temps dañuy faral di ko def suñu togg yi day relever goût en même temps di ñu fajaale gis nga ni ñu koy émincer finement voilà gis nga nag nii moom laa ciy soxla bu ma ko daggee nii nag ba mu sew damay ñëw directement xoolaat li nga xamante ne nii mooy sama poêle ma daal di jël li nga xam ne mooy samay brochette mixte directement ñëw jàllale ko ci poêle bi voilà voilà gis nga brochette yi nii rek bu la neexee tamit boo nekkee sa bu la neexee tamit boo nekkee sa kër boo amee sa mën nga ko ci lakk men tey man dama préféré directement ñu daal di koy euh, rissolé ci poêle bi ñu def tuuti épice tuuti gingembre daal di jël tuuti poivre def ci ñu paree nag légèrement ñu relever ko ni daal jël tuuti ci persil bi daal di ciy rajouter nii nag comme ni ngeen ko gisee nii nii nag laa koy tourner ci kanam au fur et à mesure ma di ko tourner pendant ce temps nag ma defaraat yeneen brochette daal di defaraat li nga xamante ni mooy sauce cocktail bi nga xamante ni mooy accompagner suñu brochette tey sauté quelques légumes aussi pour accompagner brochette bi daal di def tuuti le tu à côté pour dresser li nga xamante ni mooy suñu plat du jour tey. mën su fi nee na jalañ xanaa neex na <laughs> doo seen morom maa ko wax doo moroom sax xale yi laay Facebook maa wax lii ay alfeek ay tabaraak ñii togg ak ñëpp toggoo toog ay ay ñëpp doo yi sax doo seen morom ñii traiteur ay ajaratu rama jaw ak ay béti duudu ay alfi ba pare yow sa ay kii euh, affaire bi nu mu tudd lii lu gudd lii nu mu tudd mooy euh, merguez bi. sa ay merguez moo bokkul ak seen merguez Alphie <laughs> Alphie xam ngeen merguez la ñu daan indi yu tool nii Alphie yaa Alphie mën a dagg xol ay merguez yu tool nii Alphie moo bon. yow sa pat alte merguez say merguez day lunk xam nga lunk lunk gi Alphie musu koo togg je peux toucher voilà xoolal gis xam nga Alphie musu fi wax leen dëgg nag. wax leen <laughs> musu fi indil. dinañu ñaaw mos dina ñaaw donc lii mooy euh, brochette brochette mixte ah. nag mu nekk benn plat boo xamante ni boo ñëwee sa kër mhm. liggéey ba wàcc mhm. yàkkamti mën nga jël say sous génne merguez def tuuti fois pourquoi pas mélanger ko mhm. sauté ko nii bu fekkee nag am nga temps nekk sa kër nga boyal sa benn tourne bi yëpp daal def xal yëpp di lakk di fekk di lakk di fekk ça dépend nag ci noo ko bëggee lii bu la neexee mën nga ko accompagner ak pomme paille bu la neexee ko ak riz blanc wala pourquoi pas nga def ma ne wala nga def léegi ci bu super bon ben ñu bàyyi la nga nga àggali ko temps. d'accord voilà et puis toggkat dëgg day def bone ruube <laughs> donc maa ngi ñëw maa ngi ñëw léegi nii du ma la waxagum benn keer ah. benn keer waaw ci kanam la ok xam ngeen.